you def lii kan moo fi teg lii congé la nii te eh, waxtu bii deux heures nga dem teg sa ndox mu se du ma ko sa ñii ma wax sama rajo bi man tamit lii kenn mënu wax lépp nee na dee defar na rajo bi te lii taaxul ah lii yàlla rek ko ko mën tamit ah kenn mënul yàlla rek mu ngi noonu teg nii xoor xaar yàlla ñëw. da ngay defar ba son defal ba son di fay xaalis. mo père. a père na yow bari dama metti nak quoi laaj ci lo ne. lan sa va na nga def lan ci jam lan la loo xam. ah père dem ko a la man dama wor a père xanaa seetaanoo marché bi yow demb man dama wor a père man tamit dama wor père. père. ma jëm ko porte. ah oui ma marché bi demb seetaanoo ko. père xala ma ñëw yo xamna yo xamna sa père yo xala xala rek. waaw lii lan la ah la man nag waaye père lii lan ku moom la. waaw ah, yow yaa ko moom. dëggantaan ah, yaa ko moom père démb damaa joué match bi waxoon naa dama koy jàpp am. ñu ngi nii laay mii. ay teel nag père c'est vrai. Ah, yaa ko moom. laay gis nga li nga wax dëgg la yow da ngaa nag gi nga laaj match bi man ba ma ko seetaanee laa ne leen Mbappé mënu daw. ah. mënul daw ah. ndax Saliou Ciss ba mu jëlee bal ci milieu bi jox ko El El di doxal la eh, xam match bi dañ koy football football dafa fooy kan nga match bi dem bu baax mais nañ ko ah. c'est intelligent a yow ah, yow ko faral match man Real la man faral père wuy ma. waaw dama am na loo xam ne dama bëgg nga géral ma ko. mooy lan. dama am jàpp ci biir. koo jàpp foofu. Eh, père waxal nànk nag ndax ah, père jàpp. sama boy bi Binta moo ne ci biir. ah ñëw te ku wax rek yow tamit. xam nga rek instant xel mi dalul. booy Adja xam rek tam mu ñëw fi ah. nga ne man Adja fu ma ko teg teguma ko fenn. dëgg la dëgg la loolu moo tax ma bëgg. xale bu baax la ma devant amul problème laaj na sa xel dal. père bu sa xam ne boo ko réussir dama lay doole. kon de réussir na préparé. Ah. maa la ko gi nga fii ma toog nii. Ah. bañ nit naan leen du ma fi jóg. kenn du dugg kenn du génn. mag Sall sax du ñëw du dugg. nekkuma fi ku may seet nekkuma fi. kenn de mais laaj ma. wuy ma ñu ngi ci koor nañ ne de. koor gi père koor loolu yëpp dañ koy def wuy ma. Hmm? yaa nga ca. yaa ngi laaj yaa ngi ma eh day commencé ci kaw. toog ni jaw euh, koor gi tamit heure bi waxtu bi xam naa ne commencé naa sonn de laaj daf may wax loo rek daf may wax loo rek waaw Moore sama projet ak yow fa nga toll tamit. projet bi ñoo ngi ci députant. non Moore damaa bëgg xam nga rek ñu takk ma benn yoon daal ma xam fu mu fee. waaw wax naa sa waajur ma leen wax yow xaaral ñu génn ci koor gi bàyyi ñu finaliser loolu mu jeex. koor bi heure bi deux heures noddaguñu sax man man Sow Ndiaye daa war a di teel nodd. salaamaaleykum maaleykum salaam. waa tonton Mbaye na mu naa la waa Aja. waa tonton Mbaye ci loolu ne yow. sama xarit baa ngi nii de. waa tonton Mbaye na mu naa la de. waa Aja lu tax nga gëj fi. ah. liggéey jëlal siège jëlal siège mais jëlal siège bi tonton Mbaye liggéey jëlal ma siège boobu waaw kay jël siège bi nga allah. yaa nekk si liggéey bi rek. Adja ngi tegal nii. ak ñàkk jot sama xarit. waaye gëj nga fi de. ay waay liggéey bi rek. waaye tonton Mbaye na mu naa de. ba dooma dab gis nga yow. Ah. man maa la bëgg sam bopp. nga ni. barke yonent bi. billaay. nga nekk nga ne nga nekk xale bu am jom. mais nag nga fi. ah liggéey bi rek. liggéey bi rek ñàkk jot waaw yaa ma gën a xam xam nga léegi moom nit ñi moom booy booy wut leneen moom wutal liggéey bi rek ndax liggéey bay am solo loolu lañ la xamee ah, kan mooy sa yaay ajaratu suuri ji kuy sa baay ku baax ka ay waay dama ni sa yaay liggéey lañ ko xamee ñàkk jëriñu yow boo jëlu sa tànku yaay man daf may jaaxal moo tax yow Adja man man li tax ma bëgg la mooy liggéey bi nga bëgg gi nga xale yi dañoo war a jël si yow rawikaay Ajaa ah. yaa nga ca ndékki ba macha allah. Ajaa yaa nga ca bisaab ba. macha allah Ajaa ngoon nga jaay akara Ajaa yow macha allah barki yonent bi yàlla na la yàlla fal cat. amiin waay waaw tonton Mbaye waaw waaw. ak sama sa papa Séeri moom nag euh, sa papa Séeri moom moom waxoon na ma day génn ni ma xam naa mën na am mën na am sax bu guddee daf fay fanaan wala mën na am mu teel nañu wóor daal. moom daal dem na daal xam naa ne moom waaw yaa ma gën a xam a ah, ah man kon man maa ngi dem. léegi loolu de la non toogal ñu waxtaan. ah damay dem moom. waaye bul dem nag Adja toogal nag man dama laa nam. sama xarit ah damay dem ndax moom moo fi woon yow sax indi nga ma fi woon waaye moom moo ma a ah, dem na de sama dem na de. dem na de ah, bàyyi ma dem. waaw xam naa kon ah. mënoo nga toog nag ñu waxtaan. waaw bàyyi ma dem waaw bu ko defee nag. waaw. suukaru koor man maa la koy njëkk a jox. suukaru koor gi ah déet gi di jege si. dama laa indi woon si koor tey ngay ah, eh, ni suukaru koor. est-ce que du aja doon sax déedéet déedéet waay lii lan la ni ah Adja lii lan la ni lii lan la indi woon suukaru koor. ay Adja yow yow ni nga mel ñaaw na de. bu ko defee nag yow ku baax nga ah. maa ngi dem. déedéet kaay toogal sax toogal moo waxtaan ak yow tuuti. ah laay. laay ma kaay kaay laay dafa génn de. laay génn na. Adja laay de ja yow laa yow yaa yées yow laa yow yaa bon yow laa yow yaa ma bett foogoon naa ne ñëpp may def lii sëf yow laay yow lu am ma jëndal la lu xew ma wax la laay naka te yow tey nii nga may faye simple nit yi moo tax nga may def jëf ji waaye baax na bu nekkee man rek dootoo ma ci sa néeg bi. non mais taxawal ma expliqué la. moo da ngaa toog tuuti de ah. li nga foog du loolu c'est booy ji. laay laay ku baax de ah yow it da ngay ma wala laaj ah ah tey mer nañ de <laughs> tey gars yu mer nañ ah man dama xam man. man yow benn doo xaraam nga yow père. pardon ah dimbali waaye yow nga daan may pardon. eh waxkat nga waaye yow. eh laaj sama cinq ba cinq mille jox ma sama cinq mille eh, cinq mille bi dem naa su ma duggee génn boo ma joxul sama cinq naa la def lu yow yow dafa yaa nga waaye yow eh, seytaane laay nag dama lay nopp seytaane eh, maa la mën dama lay ñuus ba nga bëgg a dee mbaadu sama tuutiwaay moo tax nga bëgg ma fonto wa yow yaay joomaram bi yow mi nga xam ñëpp a ngi woor wooro nga topp di fa tey ndey kumba kumba biige tey nga cóol le nga bëgg ma ko sëf junni yii maa koy ndoog ak jàmm te doo ci jot te nag boo génnee ba jàkkaarloog man ma si mee naa la No ñëw lay lay <laughs> laay ma ñëw koor bi topp